mooy ndey ji réew bu ndakaaru jaraafi ndakaaru yow jaraafi tubaab jalaaw sëriñ barñi jàmbur yi ñoo ànd ak man tey ngir indi sunu njaal si gin digaale nag su ko wolof day wax koo digaaleel moo ko waral sëñ Sidi Motaar mi fi jóge tey digaale nanu ko ginnaaw kilifa bi mu nekkoon ak kilaafa bi yoroon dafa bàyyi woon cër bàyyi bët bàyyi xel ndakaaru ba saa fu musaanu dugg yëgal nañu ko ñun bu ñu ko yëgalee it daañu sunu kilifa ñëw na fi looloo waraloon bis bu fi musaana ñëw ndakaaru daana ko jàppal ñetti fan yoo xam ni daana ko toggal añ ak reer moo fi jóge tey koy jaal bokk jullit yëpp di naan yàlla ñu taseeg yërmande bi ci topp mooy indi siyaara ak ñaan ci sëñ Muntaxa ci goreem ci taalibeem ci yiwam ci bëgg borom Tuuba ñaan yàlla it naal yi fi sëñ Sidi Motaar Ba lépp mu àggale ko ci jàmm biñ ci ëppoon solo mooy naal bi nga xam ne moom la ñu féetale Ndakaar muy jumaa ju tedd jooju la nga xam ne Cheikh Salif Mbacké la Mouhamadou Lamine Bara suñ Cheikh Mati lay ba tay moom mu mujj ko ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla may kàttan ak wér ba mu ubbil ñu ko li muy mujjee mooy ñaan réew mi ñu ñaanal suñ Muntaxa mu gudd fan ñaanal ko mu am wér ñaanal ko ba nësëri fi ay wajuram mbay ñaanal Mouhamadul Bachir ñi nga xam ni xalif général bi delloowaat na ko tey kilif teef gi nga xam ne moom la yore ci su doon remaniement dañ naan dañ ko takkalaat yeneen raaya kon ministre d'état lañ koy woote ndax dégg naa sëñ bi ni ko da nga amoon limite waaye amatoon limite tey ñaan yàlla bokk julliti ak taalibe yi ñu ànd ak yar ak teggin te ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew ndax loolu jàmm jàmm ko gën yar ak teggin jot naa ne jullit bu ko amul sax yomal am doo dugg àjjana te réew mi fi mu toll nit ñi ci li ñu war a ñëwaat mooy yar ak teggin te dama gis ni léegi li xew mooy saaga kilifa xas kilifa ndax doo mën a jàkkaarloog moom jaarale ko ci ay xarala yoo xamante ni bii lu neex waay wax lu neex waay def loolu bokkul ci ñun ñuy ñaan ñi nga xam ni jàpp nañu ni àdduna kët am na fu mu yem ñu waxtaanaat ci biir xol ak biir xel que ni loolu amul njariñ ci réew ndax xarala yu bees yi kët am na njariñ ci wenn walla waaye nag wàll wi mu am njariñ mooy ay xibaar tegu si yoon. ay xibaar yu dëggu mais sosal kilifa waxal kilifa lu dul jikkoom fekk